أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi tey ci suñu dars kitaabu tawxiid di jël tey juróom-ñaareelu bind te mooy juróom-ñaareelu dars leçon bu tey bi dafa topp ci bi paase woon ci fadlu tawxiid wa maa yukaffiru min az-zunub ngëneelu wéetal yàlla tabaraka wa taala ku ko am ak ku ko def jéggal guñ lay jéggal say bakkaar tomb tey bi bokk na ci li ci ab jullit di jëlee li ci ab jullit di jàng mooy jullit bi dina xamee ci darsu tey bi ala fadli tawxid ngëneelu kennal yàlla ak wéetal ko wa annahu yukaffiru zunub moom kennal yàlla day tax ñu jéggal nit ay bakkaar ay bakkaar nag lépp luy tax ñu jéggal ko jullit war na ko taxawee war na ko uti war na ko sàkku ji war na ko gëstu war na ko xam war na ko jëfee ndax ay bakkaar mooy li alak doomu aadama yowmal qiyaamati ni doomu aadama di kër kërlee ci ngëneeli àddina ci ay xéewali àddina ngir mën a tedd ci àdduna noonu la doomu aadama war a góorgóorloo kër kër yëngatu ci lu ko moytandikuloo ay bàkkaar ngir ëllëg yowmal qiyaam mu mën a texe sori safara dugg aljanna ñaareel bi mooy an yuhaddida al muslim afdal al azkar wa azamiha ci darsub tey bi mooy ci bindub tey bi jullit dina ci jànge li ñuy tudd yàlla wala loolu ñuy tuddee ñaan ana ban ñaan ana ban azkar ban tudd yàlla moo gën a màgg ci ñaan yi ñuy tuddee yàlla tabaraka wa taala ban moo ci gën a màgg ban moo ci gën a baax ban moo ci ëpp daraja ban moo ci ëpp doole loolu tey ci dars bi ab jullit dina ko ci jàngee ab jullit dina ko ci mën a xam ñetteel bi ab jullit di jëlee ci darsu tey bi mooy an yastantija al muslim hirsul anbiyaai ala al ibaada jullit dina xamee dana wittee dana leer dana ko leer moom jullit ne yonent yi alayhimu salaam ñu xëroon ci jaamu yàlla lañ jullit bi tey leçon bi dina ko ci jàngee njëkk ñuy dugg ci dars bi mooy dinañu liir texte bi su ko defee ñu daal di càmbar saxaaba bi nga xam ne moo ñu nettali hadis bi ak wax ji mu wax ak hadis bi kan moo ko solo an abi saidin alxudri an rasulillahi radiallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaal qaala muusa ya rabbi allimni shay'an أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والعربين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة maalat bihinna la ilaha illa allah rawahu ibnu xibban walxaakim wa saxaxahu mbokk yi jële nañ ci abi said alxudri kan mooy abu said lan mooy turam ismuhu saad ibnu malik ibnu sinaan moom saad abu said turam mooy saad ibnu malik ibnu sinaan ibnu ubayd al ansaari sahaaba bi ci sahaaba yi dëkkoon madinatul munawwar ci la bokk moom sahaaba bi ci waa xasraj la bokkoon xam ngeen ne madinatul munawwar bi fa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñëw fekk na fa ñaari famille ñaari xeet al aws wal xasraj yu daan xuloo di xeex bu dégg bëccëg yonent bi mbokkale leen jubale leen benn ci ñaari famille yooyu ci la abu saïd bokk te mu ngi bokk ci waa xasraj sahaabiyun jalil sahaaba bu màgg la woon sahaaba bu tedd ci kàngami sahaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk ci ñu waroon yonent bi daroon ko doon ànd ak moom guddi ak bëccëg daan fekke xew-xew yi moom saad abu saïd saad ibnu malik ci ñooñu la bokkoon wa abuhu kadalika baayam it bokk na ci xéwal yi ko yàlla defoon baayam sahaaba la woon moom sahaaba la woon allahu akbar moom ci keppaaru yonent bi la yoroo mook baayam mook baayam ñoo daan toog bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataay ci jàng ci jaamu yàlla ci waxtu yépp guddi ak bëccëg waaye abu saïd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti loon na ko ca uhud bi ñu waree dem xeexi yonent bi na ko yow munoo dem xeex waaye ginnaaw uhud moom abu saïd fekke na lépp lu nekk ci ginnaaw uhud ci ay xare moom fekke na ko mi ngi faatoo ca medinatu munawar moom abu saïd ci atum salaasa wa arbaa aw xamsa wa sittin wa qiila arbaa wa sabin am na ñu ne mu ngi sa mu ngi faatu ci fanweeri at ak ñeent ca gàddaay yonent bi am na ñu ne ci juróom fukki at ak juróom benn am na ñu ne ci ñeent fukki at ak juróom ñaar ca la faatu ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu saïd moo ñu nettali hadis bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa muusa kenn la ci yonent yàlla yi kenn la ci ulul azmi moom muusa dafa am lu mu doon sàkku ci yàlla tabaraka wa taala ci li ñu waxoon sànq ci ngëneel gi nga xam ne yonent yi bëgg nañ ko ci jaamu yàlla xër gu ñu xër ñoom yonent yi ci jaamu yàlla xër gu ñu xër ci taxaw santaane yàlla xër gu ñu xër ci bëgg di diisoog borom bi guddeeg bëccëg ci la Muusa waxoon lii nee na qaala Muusa Muusa ne woon na borom bi yaa rab allimni shay'an azkuruka wa ad'uuka bi yow sama boroom yaa rab yow sama boroom allim nii xamal ma jàngal ma shay an dara jàngal ma benn mbir xamal ma mbir moo xam ne azkuruka wa aduuka bi dinaa la ci tagg bu ma la bëggee tagg dinaa la ci ñaan bu ma la bëggee ñaan atawassulu bihi ilayka ida daawtuka su ma lay ñaan bu ma bëggee diisoog yow di la ñaan mbir moomu nga may jàngal ma koy mokkal ma daal di ma daal di koy wax mu nekk sama diggante ak yow allahu akbar Moussa nee na yàlla dama bëgg nga jagleel ma ñaan ngoo xam ne moom man dong maa la koy ñaanee man dong maa koy mokkal maa koy xam mu nekk secret sama diggante ak yow allimni shay'an azkuruka wa aduuka bi jàngal ma benn ñaan jàngal ma loo xam ne su ma la bëggee ñaan ñaan la ci bu ma la bëggee woo woo la ci bu ma bëggee jokkoo yow jokkoo ci ak yow ci mbir moomu qaala jalla wa ala buur bi nag baraka wa taala ne ko qul yaa muusa laa ilaha illa allah muusa boo ma bëggee tee ñaan jaaral ci baatu laa ilaha illa allah muusa boo bëggee tee yegg ci man jaaral ci yoonu laa ilaha illallah Moussa ba ma bëggatee ñaan jaaral ci laa ilaha illallah ba ma bëggee jokku jaaral ci laa ilaha illallah ba ma bëggee jaamu jaaral ci laa ilaha illallah allahu akbar laa ilaha illallah Moussa jaaral ci baat yooyu qaala ya rab kullu ibadika yaquluuna hada Moussa bi ko yàlla waxee baat yi comme ñépp a ngi koy wax balaa muy juddu ba bi mu juddoo ci jamonoom ba mu jëntalu jamonoom baat yi dañ koy wax guddeeg bëccëg nit ñi di ko dégg loolu moo tax nit ñi dem ba xamantuñu maanaa bi nit ñi dem ba xeeb baat bi nit ñi dem ba yitteela tuñ ko fullaala tuñ ko di ko caaxaan di ko tëgg ci ay sabar di ko bakkoo di ko fecc di ko dugal ci dansin yi di ko dugal ci laay club yi fu nekk tey baatu laa ilaha illallah ñu ngi ko fay dugal waaye ñu ngi ciy teg luñ ci warul teg ñu ngi ci yokk luñ ci warul yokk waaye ñu ngi koy dugal ci ay place yu laa ilaha illallah yelloo tey ni ñuy fote ni ñuy fowe baatu laa ilaha illallah kuñ ko fayoon sa turu baay nga jël jaasi kuñ ko fayoon sa turu kilifa nga jël jaasi kuñ ko fayoon sa turu mbokk nga jël jaasi ñu jël baatu borom asamaan ak suuf baat bi nga xam ne moo tax yàlla bind asamaan moo tax yàlla bind suuf moo tax yàlla bind mbindeef yi moo tax yàlla yónni yonent yi moo tax yàlla bind aljanna moo tax yàlla bind safara moo tax yàlla ne yonent yi jël leen ay jaasi xeex leen ak képp ko bañ a wax baat bi ñun ñu jël baat boobu baat bi yàlla téye asamaan téye ko suuf baat bi yàlla téye géej gi ba débordewul suñ kaw baat bi yàlla téye asamaan ba këppwul suñ kaw baat bi yàlla téye suuf si ba wul ba tekkuwul suñ kaw baat bi yàlla téye jant bi ba waddul suñ kaw ñu jël baat yooyu di ko fawee baatu laa ilaha illa allah yàlla ne Moussa soo bëggatee egg ci man waxal laa ilaha illa allah soo ma bëggatee ñaan waxal laa ilaha illa allah soo ma soxlaatee waxal laa ilaha illa allah Moussa sama digganteeg jaam yi dara nekk fi lu dul baat bi muy baatu laa ilaha illa allah Moussa ne yàlla baat bi sa jaam ñépp a koy wax man damaa bëgg loo xam ne man dong danga ma koy jagleel bokkuma koo kenn baat bi ñépp a ko mën ñépp a nga koy wax guddeeg bëccëg yàlla jox ma beneen baat qaala jalla wa ala buur bi ne ko yaa Moussa law anna samawaati saba wa aamiruhunna gayri wal ardina saba fi kaffatin wa laa ilaha illa allah fi kaffa maalat bihinna laa ilaha illa allah Moussa ne yow yàlla ne yow Moussa maa ngi lay yëgal ni law anna samawaati sabi buñ jëloon asamaan yi juróom ñaar law anna samawaati sabi buñ jëloon asamaan yi juróom ñaar ak ñi ci nekk aamirihin na ñu fa dëkk saakinihin na min almalaayika wa gayruhum buñ jëloon ña ca dëkk malaaka yeeg ña ca dëkk ñu dul yàlla ñu sette ñépp bàyyi yàlla dong yàlla bañ cee bokk wal ardina sabi fi kafa ñu jël suuf yépp juróom ñaar li ci dëkk ak ci mbindeef ak lépp asamaan yi buñ jëlee lépp yàlla doo nga ci dul bopp suuf nag lépp la ñuy jël ñu teg ko ci benn blanche fi kafatin ñu teg ko ci benn blanche benn plateau blanche ñu jël laa ilaha illa allah ñu teg ko ci beneen plate bi plateau blanche ñaar lay am ñu jël asamaan yi juróom-ñaar ak ña ca nekk ku dul yàlla du ci bokk ñu jël suuf yi juróom ñaar ak ña ca dëkk ak ña ca nekk ak la ca nekk ñu teg ko ci benn palaat ñu jël laa ilaha illallah teg ci benn palaat yàlla ne Moussa la maalat bihinna laa ilaha illallah laa ilaha illallah dina daaneel asamaan yeeg suuf yi ak la ca nekk allahu akbar kon laa ilaha illallah mbokk yi ban màggaay la màgg laa ilaha illallah mbokk yi ban daraja la am laa ilaha illallah mbokk yi ban ngëneel la am ak ban xéewal buñ jëloon asamaan yi juróom-ñaar ñu jël suuf yi juróom-ñaar ñu teg ko ci benn palaat ñu jël laa ilaha illallah teg ci benn palaat teg ko ci blanche borom bi tabaraka wa taala nee na laa ilaha illallah dina ko daaneel laa ilaha illallah jëlee nañ ci Tirmizi Anas nee na samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yabnu aadam law ataytani bi qurabil ardi xataaya suma laqaytani laa tushrik bi shay'an la ataytuka bi qurabihinna maghfiratan borom bi tabaraka wa taala wax na ci hadisul kursi Anas nettaliñ ko mu ne yabnu aadama yow doomu aadam law ataytani cey soo ma dikki woon soo ñëwoon ci man ëllëg yowmal qiyaam bi quraabil ardi xataaya lu toll ci ay bàkkaar lu tolloo pépp suuf soo ñëwoon ci man indaale ay bàkkaar lu toll nu pépp suuf yi toll ni suuf yi waaye summa laqaytani bi ngay dajeeg man laa tushrik bi shay'an boole woo maag dara dendale woo maag kenn la ataytuka bi quraabiha magfiratan dinaa la indil lu toll noonu ci njéggal mbokk yi bokkaale baaxul moo tax yàlla tabaraka wa taala du ko baale xoolal yàlla lu ndox boo ma boo ñëwoon ci man bi ngay dikk ci man yaa ngi indi ci ay bakkaar lu toll ne pépp suuf si waaye bi ngay ñëw bakkaar yooyu lu ñuy bari bari bari benn bakkaar dong moo ci bokkul muy bokkaale dinaa la indil ci njëggal lu toll ne bakkaar yooyu bu doon dañ koy wàññi benn pépp bakkaar bu ne dina dinaa la indi dinaa la ci indil benn pépp njëggal waaye bu fekkee ne bàkkaar yooyu bokkaalee ngi ci bokkaale kooku duma la ko baal moo tax borom bi ne innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna képp li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale man yàlla araamal naa ci yow aljanna safara nga jëm wa ma'waahu naar sa tàppuwaay ëllëg mooy safara wa ma li zaalimiina min ansaar képp kuy tooñ yàlla doo am ku la dimbali keroog mbokk yi su ñëwee ci élément wu dars bi élément yi nga xam ne moo tënk leçon bi mooy anasiru dars dinañ gis tomb bu njëkk mooy xirsul anbiya alal ibad xër gi nga xam ne yonent yàlla yi xëroon nañ ko ci jaamu yàlla talaba musa alayhi salaam min rabbihi an yuallimahu dhikran yusni alayhi wa yatawassalu ilayhi bi fa arshadahu rabbuhu subhanahu ila qawlihi la ilaha illa allah musa alayhi salaam sàkku na ci borom bi tabaraka wa taala pour yàlla xamal ko yàlla jàngal ko ñaan bu muy ñaane digganteem ak boroomam jokkuwaay buum gu koy jokkale digganteeg boroomam sunu borom daal di koy jubal daal di koy orienté ci benn baat muy baatu laa ilaha illa allah is hiya afdalul azkaari ndax moo gën ci tudd yàlla gi doomu aadama di tudd yàlla zikri yi wirdi yi laa ilaha illa allah moo ci gën wa azamiha maana moo ci gën a màgg ci ay maanaa moom laa ilaha illa allah wa li ajliha xalaqa allahu alxalqa laa ilaha illa allah moo tax yàlla bind jaam ñi wa arsala rusulu moo tax yàlla yónni yonent yi wa unzila alkutub moo tax yàlla wàcce téere yi fa hiya zikrun wa du'a moom laa ilaha illa allah baat la yu ñuy tudde yàlla ak baat yu ñuy ñaanee yàlla jullit buy wax laa ilaha illa allah mu ngi tudd yàlla suy wax laa ilaha illa allah mi ngi ñaan yàlla yéen samay mbokk maa ngi leen di mooy tëndikuloo di wax laay laay lalaa laay laay lalaa du dara laay laay lalaa du tus laa ilaha illa allah loolooy baadi waaye laay laay lalaa gis kilifa gu dund juróom-ñaar si kaar bés bu nekk mu jël kurus diggante sept heures ak huit heures du fi wax ak nit naan laay laay lalaa waxul dara day sonal boppam rek laay laay lalaa du dara ñaareel bi mooy azamu kalimati tawxid màggaay gi nga xam ne baatu tawxid màgg na ko azamul kalimaat kalimatu tawxid baat yi gën a màgg ci baat yi di jullit di tudd ci baat yi jullit di wax ci baat yi jullit di jàng ci baat yi jullit di mokkal mooy baatu laa ilaha illa allah fa hiya azimun azimatul maana baat yu màgg la ci maana saqilatul wazni baat yu diis la buñ koy peese ëllëg walakin yaxtalifu wasnuha waaye nag buñ koy peese peese bi day wuute buñ ko tegee ci balance day wuute bi xas bi man sadarat anhu lu tax muy wuute ca dënn ya mu génnee ca dënn ya ko fas ca xol ya ko gëm ca gémmiñ ya ko tudd saloo ko gémmiñ nga ko tudd ak ca dënn ba mu génnee ni ñooñu wuutee noonu la balance bi di wuutee ci peese fal munaafiq yatalafazu biha walakinaha la tazinu inda allahi shay'an li annahu kaadibun fi qawliha naafiq buy wax laa ilaha illa allah du dara buñ koy peese amul benn valeur ci gémmiñ gu muy génn ci gémmiñam tudd bi mu koy tudd ak bi mu koy génnee ci dënnam ndax ba muy génn waxul laa ilaha illa allah lan la wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ak laa ilaha illa allah nit ñu wuutee ci tudd noonu la ñuy wuutee ci balance bu ko yàlla di peese yowmal qiyaama laa ilaha illa allah walmuminu yatalafazu biha muhiqan li shurutiha fa yakunu laha waznun azim inda allahi jullit bii tudd baatu laa ilaha illa allah bi mu koy wax daf ko dëggal boole kook ay sartam ca jamono yooyu nag lay am poids lay diis suñ ko peesee ci yàlla tabaraka wa taala ndax waxoon nañ leen charte la ilaha illa allah juróom-ñaar yi surutu la ilaha illa allah ci dars bi passé leeraloon nañ ko kon jullit su koy wax day ànd ak sart yi bu ko booleeg sart yi ginnaaw ba ko xol bi gëmee gémmiñ gi tudd ko mu nangu ko su ko defee buñ ko tegee ci balance mu am poids mu daal di diis ndax dëggal gi mu ko dëggal fala wudi'ati samawatu sab'i wa man fiha من العمار غير الله والأرضنا السبع وما فيها في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن هذه الكلمة لا إله إلا الله mbokki jullit yi bu ñu tegoon asamaan yi juróom-ñaar ak ña ca nekk ci ay malaayika génne ci yàlla ñu jël suuf yi juróom-ñaar ak ña ca nekk ak la ca nekk ñu teg ko ci balance ñu jël laa ilaha illallah teg ci balance laa ilaha illallah dina daaneel asamaan si suuf si lu tax ndax dafa ëmb baat bi dafa ëmb day dàq bokkaale di saxal tawhid soo ne laa ilaha dàq nga soo ne illallah saxal nga laa ilaha dàq naa lépp lu ñuy jaamu te du yàlla illallah maa ngi saxal ne jaamu gi yàllaa ko moom moom dong kot amul keneen keneen bokku ci lu keneen di rëy rëy rëy mbaa muy màgg mbaa muy am daraja mbaa muy baax kenn waru ko dendaleeg yàlla mi ko baaxal kenn waru ko dendaleeg yàlla mi ko bind kenn waru ko dendaleeg yàlla mi nga xam ne mooy boroomam yàlla buur la boroom la allahu akbar ixwaani laa ilaha illallah moo gën a diis moo gën a rëy moo gën a màgg ci bépp ñaan bu ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala moom laa ilaha illallah dafa ëmb ñaan ëmb tudd yàlla ëmb loo xam ne bu ko doomu aadama fasee di ko wax ñu jéggal ko ay bakkaaram yépp nu mu mën a toll loolu moo tax ñu war ko xam ñu war ko fonk ñu war ko teg place am ñetteelu tomb bi ñuy jëlee ci dars bi mooy at tawxid yu kaffiru zunub wéetal yàlla day tax jaam bi ñu koy jéggal ay bakkaaram man laqiya allaha muhiqan tawxid képp ku dajeeg yàlla fekk mu ngi dëggal tawxid fa inna allaha yukaffiru anhu zunuba yàlla daf koy jéggal ay bakkaaram képp ku dajeeg yàlla ba ngay dajeeg yàlla yaa ngi dëggal tawxid yaa ngi dëggal kennal yàlla bokkaale wa ko kenn wala lenn dendale wa ko kenn wala lenn borom bi tabaraka wa taala dalay jéggal say bakkaar wa in kaanat mithlul ardi bu tole woon ne pépp suufi suuf si benn bu nekk boo defoon ay bàkkaar yu fees géej fees suuf nga déggee yàlla bokkaale wuloo ko yàlla jéggal la aw maa yuqaaribu miluha wala loo xam ne tolloon na ak moom wa hada dallat ala siati rahmatillahi lii day wane ne yàlla ku bëri yërmande la lii day wane ne yàlla ku baax la lii day wane ne yàlla mooy borom jaam ñi képp ku dajeeg moom bokkaale wu ko kenn wala lenn mu daal lay jéggal lii day wane ne yàlla karam yi yàlla ku tedd la ku baax la ala ibaadi yi ci jaam yi lii day wane ne yàlla ku bëgg a jéggal jaam yi la lii day wane ne yàlla ci coobareem boo dajeeg moom mbokkaale woo ko mu daal lay jéggal mbokk yi yàlla kan la lay jéggal nag mooy boo dëggalee tawxiid nga boole ci sart yi yàlla tabaraka wa taala daal lay jéggal inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasa ñeenteel bi mooy at tawxiid yadfau saahibuhu lil amali saalih ku am tawxid foo ko fekk mooy jëf ju baax ci lay nekk doo ko mus gis mukk ci lu bon kullama akmala tawxid kullama iktamala tawxid saa yu tawxid wéree mat sëkk dara manqué wu ci manaahu dalika min ixtiraabi zunub tawxid moo lay aar moo lay ñag ba doo fiqastalu di dugg ci ay bakkaar li anna hada al muwaxid ndax wéetalkat boobu qad imtalaa qalbuhu muhibban li mahabbatallah ndax dafa feesal xolam bëgg yàlla wa ijlaalihi ak màggal ko wa taazimihi ak réyal ko allahu akbar ku feesal sa xol bëgg yàlla ku feesal sa xol màggal yàlla ku feesal sa xol réyal yàlla ku feesal sa xol ragal yàlla loolu lu mu lay jural fa yadfauhu ila al amali saalih daf lay puus ngay jëf-jëf ju baax wa fi hada dalalatun ala fadli tawhid ci kaw li mbokk yi day wane ne màggaayu tawhid day wane réyu tawhid day wane ne xéewal yi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala tënk na ko ci tawxid kon mbokk julit yi tey sunu juróom-ñaareelu dars moo doon hadisu abi said alxudri mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ja muusa waxoon yaa rab allimni shay'an azkuruka wa aduuka bihi qaala qul ya muusa la ilaha illa allah qaala ya rabbi kulli cibaadika yaquluuna hada qaala ya muusa law anna alsamawati sab'a wa amiruhunna gayri wala ardina sab'a fi kafatin ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وللترمذي وحسنه عن أن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لق ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كن يعني حديثي mbokk julli mom lañ doon fatali sunu bop di len ko fatali di ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun tawfiq mu def ci ñun dégg ak topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh